Piruy Sopé Colobane ak Sandaga rue sans sori rue président de la République appelé à la République du président de la République nga xam mooy demeure historique située dans la quartier Dakar Plateau capitale du Sénégal construit en 1902 oui sama nepal waxoon naa yàgg na yàlla mu nekk la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AEF Léopold Sédar Senghor Diatta 1964 Abdou Diouf 82 Abdoulaye 2000 2010 Macky Sall depuis 2010 mu ñam fi ñamaat ñu xaarin ba xam kii woote bëgg a jot président de la République la waroon fan la wute salaamaaleykum euh, euh, allo allo salaamaaleykum maaleykum salaam joxal tur beeg sant beeg fi ngay woote Tafsir Diallo Tafsir Diallo bu Pikine Tafsir Diallo bu Pikine waaw waaw waaw tafsir lu waral sa woote ci biir palais bi. da da da je peux avoir le président. le président nag dafa am réunion nii. ah d'accord d'accord d'accord man naa la yóbbu digg moom bismillah yow laay déglu waaw waaw waaw ne ne ko ne ne ko Aliou il n'est pas il il n'est pas entraîneur c'est un bon entraîneur c'est un bon entraîneur mais toujours euh, le système de jeu on doit toujours le changer ah. parce que parce que parce que euh, aussi aussi population bi nañu que fekkee da nga jël ay ay ay boy yoo uh-huh. a te déjà le Sénégal a déjà qualifié uh-huh. a déjà qualifié mais il faut noonu la ñu pour pour mën a te te parce que su fekkee da nga da nga jël recruter benn booy xamagoo jikkoom xamagoo xamagoo système di jëm ci football. mais est-ce que mais déglu staff bi mu àndal. mais mais mais mais loolu système de Sénégal dañu war a comprendre loolu. mais est-ce que tamit joueurs ñu wax ñoom gi yedd leen mais mais mais mais mais ils ont fait leur mieux parce que parce que yeneen Sénégal yeneen yeneen équipe Congo Congo bi ñu football hmm. ñooñu ay nit lañ da ñaari tànk lañ jor ñaari loxo ñaar ñaari nopp ñaari bët am xel hmm. Sénégal tamit aussi aussi attention Congo c'est une grande équipe hmm. c'est une grande équipe ya buñ yakan dañuy rek jaati noonu ci kaw comme comme yow maanaam ci lu gàtt lan nga gis loo xam ne bii buñ ko defee daal mbir mi dina jëm kanam am ah, xam xam nga xam nga xam nga jël nañ jël nañ boy boy testé leen ci affaire bu mel déjà ça a passé am match nul uh-huh. la la la

voilà c'est ça mais la prochaine fois incha allah dina changer tactique de jeu Aliou Cissé les passes yi la booy di passe passe dafa yegg. Hmm. waaw c'est ça c'est ça. Ah, kon daal yow gis nga ni loolu moom mooy li mën doxal mbir mi. mais effectivement loolu loolu loolu. en tout cas on doit féliciter les les les les enfants. Hmm. ñu ñu gën leen a encourager mais mais mais Sénégal dafa am ñoo xam ne un deux trois rek ñu xarab gars yi. xarab leen ñu loolu c'est pas normal. Ah, répondant peut-être pour le moment. Veuillez appeler ultérieurement.